salaamaaleykum wa rahmatullah li fi maa ngi leen di nuyu seen mbokk seen soppe Mamadou Gueye di leen siyaara gën jaara fi siyaar di ñaan yàlla sama kàddu gi fekk leen yéen ñëpp ci jàmm te jàmm jooju nag maa ngi ñaan yàlla yàlla jiital ci Seydina Ousmane Sonko maa ngi koy ñaan subhanahu wa taala ginnaaw bi ñëpp mu defal ñu ko defal ko macha allah mboolem soppe Seydina Ousmane ma di leen wax loo nga xam ne dañu ko bokk rek moo tax ma wax ko waxuma ko ngir dara waaye dañu ma ko wax man itam man ne dinaa ko wax ndax lu ma am yaakaar la te lépp loo nga xam ni dafa nekk loo nga xam ne dama yaakaar ni njariñ la rek lu jëm ci Seydina Ousmane ak lu mu mën a demee lu mu mën doon dinaa ko wax allah ci place bi <clears throat> wax ko ci yeneen place def ko en même temps kon nag dinaa dinaa leen ko wax dafa am benn soppe ku nga xam ku baax la ku sell la ku yàlla may ko nga xam ne def na déplacement ba Gunjur toog fa ab diir ngir ñaana Seydina Ousmane Sonko amul benn yoon benn yoon boo xam ne bis bi duñ ci waxtaan lu mat fukki yoon mu woo ma ko waxtaan ci te li ëpp ci samay waxtaan ak moom mooy lu jëm ci Seydina Ousmane Sonko mu nekk fii ci Dakar ak mu nekk Gunjur fu mu toll ñu ngi waxtaan te lii itte yëpp li ñuy waxtaane mooy li ëpp jëm ci Ousmane Sonko wala boog mu jëm ci mbiru yàlla ci wàllu yàlla muy ku ma di jàmbaar lool ci ci wàllu yàlla di ko nga xam ni ku ma naw la lu ma mas wax rek ci Seydina Ousmane teg naa ko ba xat-xat bu mu mas nekk dafa may wone ma nangam ak nangam mooy am na sa xel dal ci nangam nangam te noonu laa ko gisee te nag dafa ma woo wax ma ni ma dafa am lu mu gis loo xam ni buñ ko defee ñun soppee Seyna Ousmane incha allahu taala dina Seyna Ousmane dina am limu bëgg te dafa wax ni fexe miñ koy fexeel muy noonam yi nga xam ne ñoom la nekkal ka ci jiitu xam ngeen ko bëgguma tudd turam lim koy fexeel muy éliminer ko du bokk ci élection yi waaye ndax moom xam na ni bu Seyna Ousmane bokkee du bokk wante lii mu wax lii mu ma wax mu ni ma bu ñu ko defee incha allah nam ma daan garanti la rek yàlla dina def Seydina Ousmane incha allahu taala dina bokk ci élection yi te xam ngeen Seydina Ousmane su bokkee élection yi gàjj na yi lim ma wax nag mooy ñu defal ko benn sarax boo nga xam ni ginaar lay nekk ginaar bu ñuul ak benn tisi bu ñuul kenn may ñaan ci kartanu yàlla fukki nit rek ci groupe bi man de fas naa ko yi na def te am na ñeneen ñu ma woo direct ñoom itam assuré nañ ma ndax xam naa li seen cofee ci Seydina Ousmane wér na mu ne dañ ko def bu subaay ak jàmm am na ñax ñoo xam ne dañ ma ni dañ lay yónnee xaalis waaye dama leen wax ni leen na ko kenn ku nekk def rek incha allahu taala kum mën a doon nga jënd ginaar ginaar goo xam ne poulet du pays lay nekk maanaam li ñuy wax ginaaru olof muy bu ñuul kukk nag ak benn tiis yi moo xam maylus la wala papalin bu ñuul nga sarxe ko ku ko ci man maa ngi leen di ñaan ci kattan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen def ko bu ñu ko defee inchaa allahu taala pexe yii ñu lal tëj ko ci këram gar gi ko fii bu ñu ko defee le plus di ngeen gis loolu lépp jeex te di ngeen gis mu yàlla ubbil ko yoon bu yaatu xàllal ko ko gën ko xàllal yoon boo ne direct la koy kondal ba pale kon nag maa ngi sàkku ci yéen yéen soppe Seydina Ousmane yéen ñi ngeen xam ne yéen Seydina Ousmane jaral na leen seen bakkan bu ngeen xëyee suba dafa wax nag ni li ko wax nag daf ko wax ne ko bu ngeen yeexee nag Macky Sall dina am li bëgg kon nag ñun ñëpp bu xëyee ku ci man boo xëyee ba lay dix heures nga def ko te yàlla dong tax nga jël ginaar gi bu ko rey nag bu ci kenn rey ginaar bi da ngay jël ginaar gi sarax sarax kooko sarax baax na ak tiisi bu ñuul boobu nga ñaan yàlla mu musal Seydina Ousmane ci pexem gouvernement bu Sénégal ak gouvernement France loolu bu ñu ko defee bu neexee yàlla ci fan yu néew wala ci ay heure dinañ léegi dinañ gis lu neex ci moom incha may sàkku ñëpp def ko ki ma ko wax nitu yàlla xaqan la ku sell la ku baax la waaw ku baax la dama ko bëggoon wax sax mu def audio bi moom ma dugal ko waaye nag macha allah su ma ko defee dina baax en tout cas bu ñu ko defee bu neexee yàlla lim ñu wax dinañ ko gis kon nag maa ngi sàkku ñëpp ngeen def ko ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal siina Ousmane ak njabootam ak mboolem les patriotes wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu